di dakkal lépp lu jëm ci wàllu dembe ak dikk bi ci jamono ji nag ubbi nañu ab enquête ngir xam fan la mbir yi jógee le soleil yëglekaay ne moom kay ginnaaw bi mu wàccee yoonam nag daal dinay am fukki passager ak benn yoo xam ne rek jëlee nañ ci ay gaañu-gaañu ñeent yee gën caa mettile ginnaaw bi ñu bloqué ay waxtu ci biir roplaan bi nag mënuñoo génn le quotidien yëglekaay ne AIBD kay moom la fa xew nag doy na waar fukki nit ak benn ñoo jëlee ay gaañu-gaañu ci ab roplaan boo xam ne rek dafa tàkk jëppet yéenekaay bi ne mbir yi dafa meloon ne ab film rekk bu ñu doon seetaan vol yu bëree bëri ñu ñaari fa daat leen di annulé yi nga xam ne ñoo waroon a wàcc nag ñu daat leen di yóbbu ca Bissau ak ca Banjul la enquête yëglekaay daal di àddu jëmale ci accident bi nga xam ne rek Boeing nga xam ne rek yaboon na lu toll si juróom-ñaar fukk ak juróom-ñeent ci ay passager moom nag ma nga daal di am ay jafe-jafe ginnaaw bi muy amal ab décollage ndax ay jafe-jafe yu ñu ne dafa am ci wàllu moteur bi ginnaaw gi nag ci la daal di tàkk jëppét enquête bi nag dikk na bi nga xam ne rek roppalaan googee am na ko mu doon amalee décollage bi jëye ji ñii nga xam ne ay expert la ñu nag kenn ku ca nekk yaa nga cay joxe sa xalaat témoignage yi nga xam ne rek moo jógee ci passager yi fekk leen ko ci biir yëglekaay bi Les Échos yëglekaay dellu siwaat ci tiitaangeeg njàqare gi nga xam ne rek moom la ñu nemmeeku woon ci AIBD ginnaaw drame boobee nga xam ne rek naroon na faajur ab musiba bureau bu enquête ak analyse jamono ji nag gàlloo nañu lépp lu jëm ci enquête bi ngir xam lan moo sookee accident boobee nag yéenekaay bi ne ñi ci jële woon ay gaañu-gaañu nag génnee nañu leen waaye pilote bi nga xam ne rek dafa am fracture moom mi ngi des ba tey ca biir l'hôpital Walf Quotidien moom xëy àddu jëmale nag ci li waral accident boobee am bokk na ci panne hydraulique boo xam ne rek moom lañ cay tudd Xavier Diatta di ab enquêteur ci wàllum accident aviation moom nag xam ne ne ci biir yëglekaay bi ne saay bu ñu déggee panne hydraulique rek jàppaleen ne moom mooy ab panne d'essence wala panne kérosène El Malick Ndiaye mi nga xam ne rek mooy jëwriñ ju ñu dénk wàllu dem beeg dikk bi nag moom jamono ji nag ci jeexi jaaxa gu metti la nekk waaye ma ngay dalal xelu askan wi l'observateur xëyee tey ji itam la xew ca AIBD mu di ab avion bu roppalaan gii di Transair moom nag na mu bàyyee yoonam ba ci ñaareelu décollage am nag ci la moteur bi daal di tàkk naka la ñu def nag ba jëyee ji ëpp loxo enquête bi nga xam ne rek moom la ci waa ministère bi dénk wàllu transport ubbi loolee lépp nag yéenekaay bi dellu suwaat na ci bés bi le jour ne mbiri kay moom nag jéggi woon na dayoo ba foo ko natt weesu na ko ay yuuxu yu metti la ñu doon dégg ci rescapé yi di xam ne ne avion bi day explosé ngir mën a mucc ci lakk-lakk gi nag yéenekaay bi ne am na ay passagers yoo xam ne rek ci fenêtre bi la ñu jaar ay dizaine de blessés ak pilote bi nga xam ne rek daf caa jëlee ay fracture yëglekaay dëggal ko ne am na ay passager yoo xam ne rek dañoo toj vitre yi nag ngir mën caa jaar ba mën a wàcc ci roppalaan gi nag bu ñu sukkandikoo ci ab ancien pilote bu Air Sénégal International sortie de piste nag luy faral di am la ci wàllu dem beeg dikk bi ñeel jaww ji source a moom dellu siwaat ci kàddu yi nga xam ne rek boobaak léegi ma ngay jib nag jëm ci accident boobee nga xam ne rek amee na ca AIBD kii nga xam ne rek moo di boss ba moom ma ngay weddi koy saytu ni mu waree di ko xool saay su nekk nag ma ngay xam ne ne avion yi ay machine la ñu nag te machine bu nekk yenn saa yi day am ay jafe-jafe moo xam muy Air Sénégal ba ci Air Bamako ñoom ñëpp dañuy am ay sortie de piste décollage bi nga xam ne rek boobaak léegi ñu ngi koy wax loolee dara amu ca problème technique daal la ñu ca daal di saytu rek ne moom moo waral yëf yi daal di xew te loolee bu amee nag décolage dootul mën a am sortie de piste la ñu koy mën a tuddee Air Sénégal ci boppam moo ko waroon a dakkal bu yàgg a yàgg te ñun nag fukki at ak juróom def nañ ko fii ci réew Sénégal gisu leen fi benn vol boo xam ne rek mën nañu ko méngaleeg taxawaay gi nga xam ne rek am nañu ko fii ci réew Sénégal diiru fukki at ak juróom addu ah, jëmale ci leneen mu di laas yëglekaay dellu siwaat na ci yeesal yi nga xam ne rek bëgg nañu ko indi ci wàllu napp gi càmbar gi nga xam ne rek war nañ ko càmbar pavillon Sénégal saytuwaat lu jëm ci accord ak licence de pêche yi président Bassirou Diomaye Faye nag fi mu toll nii nag taxaw na temm ngir lépp ànd ak leeraange Sud Quotidien dellu siwaat ci li nga xam ne rek moo jëm ci ni ñu war a sàmmee suñuy meññeef na état bu Sénégal jamono ji nag président Bassirou Diomaye Faye ma sàkku ñu saytuwaat lépp lu jëm ci code de la pêche daal di auditer nag pavillon Sénégal licence de pêche yi itam nag ñu xam naka la ñu koy doxalee ci ab publication boo xam ne rek moo jëm ci bateau yi nga xam ne rek mooy nappee fii ci réew Sénégal ca la daal di sàkkoo leeraange daal di tukkee ci accord yi nga xam ne rek moo dox suñu digganteeg ñuy di waa Union européenne Magaye Gueye di ab économiste international di xamle ci biir Vox Populi nag ne du dëgg du yoon Union européenne nag ni ñuy doxalee ak réew yi nekk fii ci déndu Afrique te doy na sëkk nag di dakkal ni ñuy yi nga xam moo nekk ci dendu Afrique te loolee nag dafay ànd ak rigueur bu am solo goo xam ne rek ñii di kilifay Afrique nag moom la ñu war a nekkee daal di xoolaat nag lu jëm ci contrat yi nga xam ne rek moom la ñuy signé ak waa Union européenne addu jëmale ci wàllu wér-gu-yaram jamaatam jàpp bokki jawee ab cas fièvre nga xam ne rek moo di hémorragie Crimée Congo moom la ñu fa daal di nemmeeku informateur dellu siwaat ci épidémie bu fièvre Crimée Congo mi nga xam ne rek nemmeeku nañ na daal Sénégal enregistré na nag cinquième cas bi nga xam ne rek moom la ñu daal di nemmeeku ginnaaw ndakaaru ca Kaolack maatam jamono ji nag jot na wàllam ci bile feebar addu jëmale ci réew mi people artiste bii di Rich Wane moom la Anna Thiaw dalal tey ji nag mu di ab rappeur boo xam ne rek musique mu ne ci deretam la nekk séq naag moom waxtaan wu yaatoo yaato yër leen boobee yëglekaay jeexalee xibaar yi ak la xewoon ca kër yërmande bu Ndella Madior Diouf ginnaaw bi mu janee ak àttekat bi yéenekaay bi xam ne ni nag moom Ndella Madior wedd na lépp loo xam ne rek ay tuuma yu ñu gàlloon ci ndoddam la ne xewee na foofee ca kër yërmande mbokk yi léegi noonu fa si yëglekaay jàmm